grand a ngi bëre drapeau c'est un jeune parmi les jeunes kuréel gii nga xam ne moom la ñuy jiite di président des des promoteurs authentiques moom ngeen di bëre drapeau Diène Marcel Diagne. ay ca seen lii ay ca jam ceri jam tere ngoog jam tere kay a jët li xam sa cosaan ah photo bi na Jet Lee Diam Terry ngoog ku ci nekk pare nga say dernier butéel lamb jaa ngi noonu eh, lamb ju neex lamb ju naa gaaw lamb ji eh, du yàgg du yàgg Jet du di ko xaar Diam Terry day dem lamb ju gaaw lamb ji. Eh. Adama noo gisee ñaari mbër yi. <laughs> sama cameraman bi. am na lu muy ràngoo moom Jet Li. simi na ko benn la. solaat na ko. wàcceewaat na ko. ay baa ngi laa sixième. bi jox na avertissement Diam Terry nee na ko dugal potence dent bi ngi laaj ay jugeem laaj na ko moom Diam Terry nee na ko ba am pare nga jëli pare nga Habib sifflé na Terry ak Jet Li drapeau jeune Marcel Diagne borom Jilaas combat baa ngi noonu le 23 arène nationale ah, ñoo ngi demee wet jamteeri jat ñoo ngi demee wet ñoo ngi demee wet combat gaal di am xeex am jaay noonu <laughs> jat xam sa cosaan jamteeri kayaar lamb jaay noonu ñoo ngi lewaatoo jamteeri teg pied Jet Li teg pied droite ñu jaakaarloo ñoom ñaar Diam sa gën a tibb suuf Diam sa gën a tibb suuf demee nañu wet ñoo ngi ci wetu saaku yi Diam Terry Jet Li Diam Terry Jet Li Diam Terry Jet Li Jet na léegi Diam Terry na léegi yàgg yàgg sa tànki la jëm Diamtéry Diatly Diamtéry Diatly Diamtéry Diatly jël na ko jàppante nañu jàppante nañu Diatly kor na ko kor na rokas na léegi moom Diatly rokasaat na léegi moom Diatly ñooy xeex Diamtéry door na ko Diamtéry door na Diatly ay baal tawaat nañu du yomb lamb ju neex Diam Terry Jet Ly Diam Terry Jet Ly Diam Terry Jet Ly ñoo ngi lewaatoo Diam Terry Jet Ly ñoo ngi demee wet jamteeri jetli abi neena bëre leen jetli cokaas na léegi ñoo ngi jàppante ku nekk a ngi déglu sa Diam Terry mbokk yi moo ñëwoon ginnaaw Jetli lañ jàkkaar lool Jetli benn loxo bi jàppul kor na moom Jetli moo ngi dugal bopp bi du dóor Jetli Diam Terry Jetli fàq noko ko fàq na eh, loolu baaxul Diam Terry fàq na ko léegi waaye mu bañ Diam Terry jël lii ci suuf jël léegi dóor ci faari jël léegi pompe jël leen koy pompe moo tax jël pompe pour mu bàyyi foofu jël li Jetli bi Jetli loxo bi jàppul moo ngi woo fu mu jàpp ci ngemb li Jetli Diam Terry Jetli Diam Terry ah, na lamb ñu neex Jetli ngi dóor yi Jetli Diam Jet Li Diam Terry Jet Li joxe léegi dafa bari ku nekk a ngi taxaw ne tekk yi déglu sa morom Li Diam Terry Jet Li ngi pompé Jet Li ci faar yi Jet Li ngi leen ko bëgg a plaqué jot leen ko bëgg abel nañ saako yi stade baa ngi toj stade baa ngi riir làmb ji neex na ay jët li jëm teeri li jëm teeri Jet Li Diam Terry Jet Li ngi waxal si suuf dooraat na moom Jet Li dooraat na beneen Jet Li Diam Terry na ko takk moo ngi koy takk Diam koy takk Diam koy takk Jet Li ngi bañ Diamté nga koy xëcc ah rëcc na moom Jet Li Jet ñoo ngi ku nekk ne teg Jet Li Diam Terry Jet Li ngay puus Jet Li Diam Terry Jet Li Diam abi bi Ardo Diam Terry dem Ardo lewaatoo ñoom ñaar Jet Li Diam Terry lewtoo bi yàgg na lewtoo bi yàgg na Jet Li Diam jël Li Diam Terry daw na jël ko moom Diam Terry Jet Li kor na ko moo yootu ngemb li Diam Terry añ na ko léegi Jet Li doo ci faar yi ngi dóor jët la ngi dóor jam téeri moo ñu wan ginnaaw jët li lañ jaakaar lool drapeau jën marsal la kookoy borom jilaas Jet Li Diam Terry Diam Terry nga koy topp Diam Terry nga koy topp Jet Li dugal na léegi benn droite daw na jël ko jàppante nañ biij na ko moom Diam Terry na ko ndomb Diam Terry woon na ndomb Jet Li Diam Terry woon na ndomb Jet Li Diam Terry woon na ndomb Jet Li Diam Terry nga koy bëgg a yenu Diam Terry nga koy bëgg a yenu waaye Jet Li daa bañ daan na ko Diam Terry daan na Jet Li Diam Terry daan na Jet Li Diam Terry daan na Jet Li Diam Terry daan na Jet Li Diam Terry daan na Jet Li